الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا همة شيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتعطفي بنظرة بها أنال الوتر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي subhanaka allahuma la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim wa billahi astainu fi kulli umur wa alayhi attakilu fi kulli duhur ñu ngi nekkoon ci suratul araf ci aaya taxawoon démb ci aaya téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett fañ taxawoon mooy Muusa Samiri nag woowa mu yettaloon gaa yi gaa yi di tëgg di fecc di ko wër jàppee ko mu nekk yàlla mu xamal leen na nag lii la muusa di wër da fàtte fii fa jëm nekku fa fii la saa borom di leen di yedd ne lii ñu jël daal def ko yàlla tooñ nañu moo tax mu ne walamma suqita ba nga xamee ne roteleef na wala nga ne rëccu nañu màtt wi cax kinaay la ci rëccu rek ndax nit saa bu rëccoo day matt baaraam bi cax sànni gi mu sànni baaraam rotal ko noonu ma ngoog wala teeleef nañu wala rëccu nañu fi ay diihim ci seen loxo matt wi caax ngir jaamu gi ñuy jaamu lu dul yàlla mujj nañ ko rëcc waraaw xam nañu ñoom ci seen jëmmi bopp xam nañu annahum naka ñoom qad dallu wàcc nañu yoon wi de fi nekk du foofu ndax du lii la leen yént yàlla Moussa jàngaloon ba ñu yégée ne wàcc nañu yoon wi nag ñu teel a nangu itam ndax teel a nangu dafaa yombali dóor ñoom ba ñu teelee nangu rek ñu jàkkaarloog borom bi am yuñ ko déeyi xaalu nee ñu yow yàlla la illam xam naa ginnaa bu bu ñu yërëmulee ginnaa bu yërëm bu ñu yërëmulee rabbunaa sunu boroom wa yaxfir lanaa mu jéggal ñu sunu njuumte suturaal ñu ci bu ñu yàlla jéggalul suturaal njuumte yi ñuy def xaw ma ñen de waaye ñun de lana ko nan daanu bokk min alxaasiriin ci ñi nga xam ne dañuy perte fii ak fële kon yàlla dolli sutura dollil yërmande ci ñun yént yàlla Moussa bàyyi ko na ci rendez ba ñoom moom teel nañu yëg ne def nañ njuumte Moussa nag delsi na fekk gaa ngi ci njuumte lu rëy loolu wala ma raja ba nga xamee ne wàññiku na Moussa yént yàlla Moussa ila qawmihi jëmaat ca bokki boppam ya ca nitam ya gadbaan nekk ku mer lool mar lool te la ko yóbbee mer mi du mbirum àdduna du dara jaamu goo xam ne gaa ngi koy jaamu lu yàlla rek lu naqar yàlla da ko mer loo waaye du leneen asiban mbir moom muy aji tar ci njàqare lool jombi na ndax xamul fu mu koy waxee ji ndax kër gi gannaawam wuutu nañ ko fi wuutin woo xam ne jaarul yoon te xamoon na ne lii dina fi am mm. ndax lu tax mu doon dànkaawu Haaruna kay di ko wax naa uxluf nii kay nangam nangam yooyu kay xamoon na ne nangam mën na fee xew xaala góor gi Moussa ne bi isama bon na lool xalaftu mu ni li ngeen ma wuutoo min baadi ah li ngeen remplacé sama ginnaaw de def ko sama ginnaaw dara jaaru ci yoon naqari na ma trop mm. ajiltu ndax da ngeen a yàkkamti amra rabbikum seen mbiri boroom yéen yàlla ne na ngeen xaar ma jëri ji téere te ñëw ngeen yàkkamte yàkkamte yàkkamte mbir mi ba far tabarakallahu burle ko ëpp na xam nga joxoon nañ ko tawraat bindoon ko ci ay aliwa ci niñ ko mën waxe aliwa yi ñu ko bindoon nag Moussa ba mu ñëwee rek daf ko sànni ngir naqar naqar googa moo tax aliwa yëpp toj waal kaa sànni na al alwaaha tawraat fa ñu ko bindoon dal sànni mbind maag lañ ko joxoon ak yëpp mu sànni ko fële ndax yéeg na wa akaza jàpp na commencé na jàpp na birasi ak ca bopp mbokkam ma grand frère bi di Haarun jàpp ci boppam bi waxoon naa lu démb nag ah nee ñu moo ko mag hmm. moo ko magee lu toll ñetti at ak yu ni demee hmm. jàpp wob bi hmm. yajurruhu di ko diri ak a ñot ak a bipp ilayhi jëmee ci côté ngir meer Haaruna moom mi ngi ànd ak sagoom rek teey rek ndax xam na ne yàgg-yàgg yént yàlla Muusaa mi mer na te jamonoy meer moom ñaari loo ci wax nit du ko dégg qaala Muusa ne ko ibna umma bi maanaa yabna umma rek yow sama doomu ndey nal kawma naka sama bokki bopp yii naka nit ñi nga ma bàyyee woon dénk ma seeni mbir istadaafu nii doyadil nañ ma ñàkkal nañ ma fayda ñàkkal ma solo wéeguñ ma dara joxuñ ma benn gëdd te waa kaadu xaw kon nañu sax nag mm-hmm. yaqtuluuna ni di ma rey tuuti rek ñu rey ma mm-hmm. ndax ba ñuy def njuumte ma taxaw nañ njuumte la du fi am mm-hmm. dañ ma song xaw nañ may rey moom ko yàllaa ci jàpp waaye ko noonu dana ñaaw trop ñoom nag ñi ngi doon bëgg a rey yow nga dikk bëgg maa jekkale ci seen kanam boobaa da leen di may lu ñu wax hmm? wala tusmit bul ndokkuloo wala bul kontaanloo mm-hmm. biyee ci man mm-hmm. al aada mm-hmm. ñoddi gii nga ñoddi sama sikkim bi ci kanam mbooloo te ci kanam ñu ngi koy ñoddi samay noon lañu ah bul tax nag ñu am luñu luñ luñ ma bégee wala luñ ma kaañoo bul tax ñu am kaañoo ci ka buñ luñ may kaañoo kat bu leen ko may wala tajal ni bu ma def yàlla bu ma yàlla boole maal xaw mi ànd ak gaa nga xam ne azalimin ñooy aji tooñ ndax ñoo doon jaamu xërëm yi yonent yàlla Muusa jàkkaarloog moom nag daal leer daal di jàkkaarloog yàlla nag wa xaala wax na moom Muusa na rabbi yow sama boroom ixfir lii yàlla nag ma jéggal suturaal ma ci njuumte lii ma gaaw song ak lii nga xam ne xew na ci sama ginnaaw te ci sama ndigal wali àq yi ak sama grand frère bi yàlla na ko baal wa adxil naa yàlla nag dugal fii rahmatika ci sa yërmande ji yaatu ji xam naa ne xajuñ feneen dul foofu ndax wante yow arhamur rahimin yaay aji yërëme yërëme kat yi léegi ko nga firee afal tafdil yàlla kenn du ko tëggal afal tafdil moo tax moo tax nee na inna lesi naka gaa yi nga xam ne ittaxasu jàppoon nañu al ijla yëkk wi jàppee ko muy yàlla sama borom nee na mer naa leen trop sa yenaaluhum dana leen joti danañ ci ami gadabun mer muy jur ay duma min rabbihim sànjum yàlla mu jur ay duma ci seen kaw daal danañ ko am wa zillatun ak gàcce ak toroxte mm-hmm. ak sutura su xotteeku mm-hmm. fil xayaati dunia mm-hmm. te sutura su xotteeku sax mooy bal ni yàlla waxee rayante leen ñu rayante ma ngoog wa kadalika nekk nii ma faye ñii najisi la ma fayee al muftariin duurkat yi ñi nga xam ne dañoo duural yàlla di wane na yàlla ñett laak ñeent di bokkaale tabarakallahu ñooñu ñëpp noonu nii ma ñii noonu laa leen di fayee waaye wa wallazina gaa ya nga xam ne amilu jëfandikoo nañu assayiaati ñaawteef ñaawteef bu mën di doon nag su mataa bu topp ñu arrière tuub dellu ginnaaw ci njuumte yi ñu nekkoon min baadihaa gannaaw ba ñu ko defee ba pare waa mënu ñu gëm yàlla nangul ko ah yàlla de ku baax la inna rabbaka naka sa boroom min baadiha gannaaw ba ñu tuubee ba pare mm-hmm. la xafurun ku bëri la mm-hmm. ku bëri la pour ñoom mm-hmm. waaye raximun itam ku leen mën a yërëm la Moussa nag delsi na mer mi dal na dafa tolloon ci xaalatul fana léegi nag jugee na ci xaalatul fana delsiwaat ci xaalatul baqa ma maa sakata ba mu demee ba dal delsi ak xelam nit a nekkaat ci moom am Moussa ci yent yàlla Moussa dem ba delsi ci moom dem ba dal ba delsi alxadabu ba mu demee ba àndaat ak sagoom daal yëg ne mi ngi fi aka jàppaat na jëlaat na al alwaax aliwa yem sànni yépp la nanguwaat jëlaatal ko boppam wa fii nusxatiha nekk na ca la bind ca alwaax yooyu le mooy aliwa yooyu le nekk na ci lañ ca bind hudan kon delsi na kon nit ki moom loo ci jàngatee suy mer na mer yàlla tax maanaam la muy mer dafa fekk mu nekk lu mer loo yàlla bañ di meree ci bakkanam waaw kay ndax nit ñi nag léeg-léeg lañuy ñuy meree ci seen mbiri bakkan dafa bëri torop torop torop neexuma rek jubluwuma nangam nangam sàkku naa ci moom mbir joxuma ko mere ko yooyu matu ko na na fekk la nga koy meree dafa fekk mu xotti sharia ida qiila xilmun qul fa lil xilmu mawdiun mer ak ànd sago dafa am barab wa xilmul fata fi gayri mawdihi jahlun képp nag njuumte yëpp looloo ko indi di foo warul mere wala loo merul mere nga di yemeer hmm. njuumte la hmm. foo warul ànd ak sa sago it nga ànd fa ak sa sago la hmm. kon fenn fu ne da ngay xool la mu laaj ko joxe ko Moussa it noon rek la jëfandikoo waaye njub la moom téere yooyu ak aliwa yooyu li xaw min ñeel a ah, ah, ah, tuub lillazina ñeel gaa yi nga xam ne hum ñoom yarhabuuna daañu ragal aka tiit li rabbihim ñeel seen borom yént yàlla Moussa yàlla naka nag njuumte am na ci sa kër gi tànnal juróom-ñaar fukki nit ñam tànn nag ci ahlul isharat ñoom dañu jàpp ne mooy ña fa nekkoon wali yu ci jamonoom ci xeetam mu tànn ci juróom-ñaar fukki wali yu pour ñu dem ñu jéggalu njuumte li gaa yi def da nga wax baax kay waxtaara tànn na bi maanaam sélectionné na rek comme ni ñu koy waxee Moussa yént kaw Moussa xawmahu tànnoon na ca sabaxiina juróom-ñaar fukk rajulan ci ay góor yoo xam ne ay góori yàlla lañu ay nit yàlla lañu ay awliya lañu mu tànn ci ñoom juróom-ñaar fukk li miiqaatinaa ñeel suñu rendez-vous bi tànn leen ba ñu demee Moussa nag na leen nag léegi ah da di woor sañ sewaat tabaarakallaahu ngir barab bi xadara bi moo laaj loolu ba ñu demee ba jege tuuru Sina am seen digganteeg Moussa am lu fa dox lu mel ni niir ñoom ñu nga fële di jaamu yàlla ci noonu rek ñu dégg Moussa ngi ngunguni ci suuf ndeke Moussa ca pàccu li gi la doon waxat wax ak googu Moussa doon wax ak ci pàccu li gi nag ñoom ñu ne ah Moussa nag ki ngay wax lañ bëgg a gis nag xam nga suñ diggante yow am naa benn parama bu fi dox hmm. parama boobu lañ ki ngay wax ak boobu kooku mooy kan yàlla ne tuub ba ma déggati ko hmm. ñu bañ dee foofu Moussa caalit na fa hmm? Hmm. dégg li muy wax ñu dem falam a ah, wax naa la dañoo waxoon ne ko Moussa dañoo bëgg gis ki ngay waxantee falammaa kasaduhum ba nga xamee ne jàpp na leen rajfatu yëngatug suuf ga mooy yënga rëy rëj ba di yuuxu Jibril ga Moussa ci la wax yow yàlla de lii nga def de man mënu ma kaa lay su ma demee ci kanam mbooloo ma mm-hmm. ndax maa leen meroon àllab neen mm-hmm. ñoom ñu ma jéppoon àllab neen mm-hmm. ma manti mantee leen indi leen ba ci àll bi nga rey leen fii su ma àggee man kan moo fay nekk sama seede kan moo mën a layal laa xamul man kon dañ naan maa leen yóbbu boo foofa seeni kilifa leen fa rendi man moom mënu maa dellu kër kese moom seetal leneen noo def ne solution génn waaye dellu kër am moom te ñoom ñi ñu nekk di fii di dee mënul ne <laughs> Moussa ne keroog jombi na xaala yéen di yàlla Moussa ne rabbi yow sama borom law siita bu la neexoon ahlaktahum nga alag leen min qablu la jiitu ñuy génn dëkk ba bu la neexoon nga faat leen foofu affaire bi yam fa ñu xam ne ñëpp ñëpp ñu gisandoo ko xam ne dañoo dee waa sama der set seen der set u iyaay ak man mii nga rayee ma foofu sax mu jeex man ma dee benn yoon sax affaire bi jeex <laughs> ah léegi nag mbaar du la gaayee def moo tax nga ñëw ba fii teg leen sanction bi sanctionné leen fii a tuxliku naa ndax dang nuy duma bi ñu sanctionné bi ma faale ci def na ko asufa way manqué yi min naa ñi fi doon jaamu lu dul yàlla sampu nag wala ñu doon def nga ñu meree ba teg ñu lii te ñun defuñu woon dara dama ne yow yàlla yow la ñuy wax de in hiya mm-hmm. déet loolu nga xam ne mm-hmm. moo daloon gaa yi doon jaamu xërëm wi mm-hmm. nekkul illa fitnatu lu sa nattu rek yaa leen ko nattoo rek su la neexoon it am comme yaa leen ko nattoo nag yaay seet ku la neex nga teg ko ci raay bi ku la neex it nga wàcc ko ndax yow tudillu da nga réeral manta saaw ku la neex bihaa ci yoon wi waaye ba tax di itam man tasha yaay seet ku la neex tabaarakallah anta yow nag waliyu naa yaay aji méngoo suñu suñu ay mbir faxfir lanaa suturaal ñu jéggal ñu war xam naa yërëm ñu wa anta yow xayrul xaafirin yaa gën ci way jéggale yi waktub naa ah, ah, ah. waktub bindal lanaa ñeel ñu fi haadihi dunya ci dundu àdduna bu jege jeex bii bindal ñu ci sunu lépp xasanatan lépp luñ ciy def daal bindal ñu ko mu nekk yiw suñu wax la ak suñu jëf wa bil aaxira ak alaaxir itam la ñu fay teewal lépp nekk lu rafet innaa nun hud tuub nañu hut naa bii ci la baatu yahut bàyyi ko min hawada mooy tekki dellu na tuub baatu yahut ci baat bii la bàyyi ko jàngoon nga ko ci sama ba di waaw bu fekkee sama xamaa ba jeex na te fàtte ko noonu de ah Ibrahima Mbartu yow sa bos dafa ngasaane ci war a asaar yi <laughs> dégg nga de tuub nañu delsi ci yow borom bi xaala yàlla ne d'accord ada bi samay duma aussi bu dinaa jotal dina dinaa ko jotal bi si ca duma ya man acha su may mbugal daal mbaam may duma mbaam may teg ay pen maay xool ku ma neex ma teg ko ko waaye nag terewul ma rahmati sama yërmande wasiat mattale na kulla shay'in lépp lëf lu nekk ci adduna rek sama yërmande ak si na ci yow iblis nag ba aay ji wàccee dafa kontaan ba ne man de ci say u laa bokk ci lëf li laa bokk kenn mënu maa génne ci lëf li laa bokk de waaye ba yàlla ne fasa aktubuha dinaa ko bindal yërmaande googu dinaa ko bindal ca axira alaxira lillazina ñel gaa yi nga xam ne yettaquuna daañu ragal yàlla iblis ne man wàcc naa bokkutuma ci course bi ndax man ragalu yàlla li moo tax li ma dal yëpp dal ma di yahudi di yaakaar ne ah ñun de wax dëgg yàlla ay kilifa la nag ñun moom ragal nañu yàlla moom hmm. nga nekk ñu ragal yàlla ñan hmm. mu ne allazina mooy wa ah, ah, ah, yutuuna ñu joxe hmm. azakata asaka wallazina mooy gaa yi nga xam ne hum ñoom yu'minu way gëm nañu bi ayatina yahudi yi ñun kay gëm nañ tawraat ñenn ñu ne gëm nañ injil bi ayatina waaye fii leen yàlla di keppee nga xam ne ñoom bokkatuñ ci kursu dégg nga bu baax mm-hmm. mooy ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom laay jegleel sama yërmaande yowmal qiyaama mm-hmm. alladina mooy gaa yi nga xam ne mm-hmm. yettabiuuna daañu topp di jëfandikoo ar rasula sayyidina muhammad ñoom topp nañu sayyidina muhammad toppuñ ko kon bokkatuñ ci course bi kan mooy ndaw li mu ne annabiya kay yenant kadi kañ solo jox ko xam-xam al ummiya kay aji ñàkk a jàng ñàkk mën a bind bi maanaa munu bi nu muy jàng nam juddu woon ci rek noonu rek la mel yàllaa ko baaxee loolu mm-hmm. hmm? ba pare raw ñëpp di wax loo xam ne tabaarakallaa ñiy bind ak ñiy jàng kenn mënu ko ci mm-hmm. ñiy bind ak ñiy jàng mm-hmm. kenn ko ci waaw waaw nekk yenent boo xam ne turam boo demee ci tawraat dafa leer nañ mun xami naa ma ngoog ayaa man xaman naa hmm? ci suryaani ya turam loolu lay tekki ci tawraat nga dem ci tawraat dañ koy wax muus muus yonent bi tudd na ko noonu injil itam saaba saaba danañ ko fay nga xam ne turam ni mu tudd ci aljanna naka waa aljanna di woowe ak waa sawara kenn ku ci ne bokkut ak morom ni nga ko tuddee asmaa nag te dullu ala musamma waa aljanna di ko woowee abdul karim waa sawar di ko woowee abdul jabbar waa aras di ko woowee abdul majid malaayka di ko woowee abdul hamid mboole mboolem yeneen tuddee ko Abdul Wahab soyaati yi tuddee ko Abdul Qahar jinne yi tuddee ko Abdul Rahim montagne yi tuddee ko Abdul Khaliq jéeri ji tuddee ko Abdul Qadir géej ji tuddee ko Abdul Muhaymin yalte yalte suuf yi si ndax yeeg ndaw ruur yeeg calla yeeg yu ni demee ñoom ñoo ko tuddee Abdul Ghiyas njaay àll yi tuddee ko Abdul Razaq nii la kii kay tur yëpp am na ko boo demee xarafi abajada yëpp dañ ciy génn turam mm-hmm. yi ngay kenn du moom kon yenent bi laa ku ko topp moom la yërmande di la ñeel àllaaxira mu ne mu mel ni yahudi nag waaw nabil ummi mooy kan mu ne eh bu leen ma fontoo allazi mooy yenent ba nga xam ne mm-hmm. dégguloo yajiduna daañu ko fekk maktuban mu nekk ku ñu bind turam mm-hmm. indahum fa ñoom ca yahudiya fi tawraat wala injil comme tur yooyu ma la wax wax naa lañ koy wax ci tawraat wax ko lañ koy wax te jàng nañ itam ci tawraat mm-hmm. ñu ne leen ya'muruhum dana leen digal mm-hmm. moom yenent boobu mm-hmm. bil maaruf ci baax wa yanhaahum mu leen di aaye anil munkari ci lu ñu sib wa yuxillu muy daganal lahum ñeel leen ab tayibaat yu yu teey yi maanaam li nga xam ne yàlla daf ko xaraamaloon ci seen sariya yenent boobu bu ñëwee lépp lu xaraamoon ci seen yu bëree bëri yàlla leen koy daganal ci mo wa yuharrimu mooy xaraamal alayhim ci yahudi alxabaisa sobe yi ak méddiye gi ñu demee moom tabaarakallaahu yàpp mbaam xoox yeeg yooyu yëpp jàngoon nañ loolu wa yadaa dana sippi anhum ci ñoom israhum seen diis diis yi li leen diis doon ci ay bàkkaar suñ demee ndigalam rek bàkkaar yi sippi wal axlaala ak gëx yi leen gëxoon allati gëx yi nga xam ne kaana nekkoon na alayhim ci seen kaw maanaa rey bakkan mm. ku reyaan bakkan tabaarakallaahu rey gañ lay rey ak yooyu mm. wala tuub gi ñuy tuub pour ñu reyanteeg sobe dagg nekk ci yow ak mm. ñooy la doo ko raxas da nga koy dagg ak yëpp xam nga ay diis diis la ay gëx la yoo xam ne tabaarakallaahu yëpp yenent bi mu ñëwee dakaa dindi waaye fa ladina gaa yi nga xam ne amanu gëm nañu bihi ci sallallahu alayhi ci yahud ya wa azzaruhu ñu wet respecté ko mm. wàcce ko wàcc waayam mm. wa nazaruhu ñu jàppale ko ci diineem jile mm. wa tabaau ñu topp jëfandikoo a nuura leer ga ta mooy alquran alladi alquran ma nga xam ne unzila wàcceef na ko maahu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci topp de ulaayka yole gaay hum ñoom kese kese kese laa wax de almuflihun ñoom kese kese kese ñooy texe aduna texe àllaaxira dégg nga de yaa yohannaas xée yéen nit ñi ñun la bu mu yam màkka day gàtt na matale moo tax yenent bi nekk yenent bi ñëpp yenent bi moo leen def déclaration yéen nit ñi camarade gars yi ne wooy mu ne inni man mii sayduna muhammad rasulullahi mhm. ndawal yàlla la ilaykum jëm ci yéen mhm. jëme an tout le monde yéen ñëpp mhm. yàlla yabal na ma ci yéen lépp luy xeetu nit daal yàlla yabal na ma ci moom jinneeg malaayka ak kan mooy yàlla mu ne alladi yàlla mooy buur ba nga xam ne lahu ñeel na ko mulku samawaati moomeluk asamaan si wala ardi ak kenn moomu ko kudul yàlla yàlla moomu mooma yabal ci yéen laa ilaha amul benn buur mm. bu nuy jaamu mm. jaamu gu jur yokkute ñàkk jaamu gu jur ak wàññiku mm. illa huwa kudul yàlla moom rek la ku fi dee mooma ku fi dund mooma léegi nag seytaane fexe naa fexe fexe ba ku fi dee ñu fàtte yàlla fële yuhyi mooy dundal waaye yu miti mooy rey de yàlla moomu mooma yabal ki fi jëlee seen maam yeeg seen maam mataar yi di leen juddul yéen ñii mooma yabal ci kon fa aminu gëm leen mm. billahi ci yàlla mm. wa rasulihi mm-hmm. ak ndawam lile mm-hmm. nangul leen ko mm-hmm. annabi kay yénant mooy kadi kañ solo al ummi kay aji ñàkk a jàng tabarakallahu mënul jàng mënul bind kay illata rek kay ummi mu jeex kan mooy ummi kan mooy yénant boobu mu ne mooy yénant ba nga xam ne yumin dana gëm billaahi ci yàlla mm. wa kalimaatihi ak alquraan yàlla ji mm. gëm na yàlla mm. gëm liñ wàcc ci moom te mooy alquraan te gëm nga nag rombu dara rombu ko ci nag lu jëfandikoo ko rek mm-hmm. wattabiuuhu topp leen yenentu boobu lim leen sant mm-hmm. su ngeen ko defee Mm. laallakum ndax la yéen mm. tahtaduuna mm. ngeen gindiku xam fi ngeen teg seen tànk xam na jaar ngeen ci kaw bi waaye leneen lu ngeen def lu dul lu bokkut ak lii ah baaxagu leen de nee wa min qawmi Muusa xamal ne am na ci nit yent yàlla Muusa yi ummatun mbooloo ay xutb ay kilifa ay aksaab xutbu foofu la génnee ci alquran soo demee ci àllul isaar hmm. la génnee ci alquran hmm. hmm. am na ci ñoom ñu déggee noonu mbooloo xam ne kilifa yoo xam ne yahduuna dañuy orienté nit ñi bil xaq bu ibrahima bi nag moom beneen affaire la xutbaaniya ibrahima bi moom beneen affaire la xaw ma bos nag war ngaa leeral fu mu génnee yow ñun yu original yi la ñuy wax de waxuñu yu yu sinwaa yi de waxuñ yooyu de yahduuna bil xaq loolu moo tax ñi ñëw octabe nit ñi teg leen ci siraatal mustaqim nekk ay xalifa yàlla da de wa bihi ci dëgg googu ya la ñuy atte nit ñi laanaan ci lañuy ñuy maandu daal waaw maandu lépp teg ko mm-hmm. ci siraatal mustaqim mm-hmm. dégg nga mm-hmm. yént yàlla Moussa boo fàttalikoo ba mu nekkee ca tiixa ba ba gaa soxla ndox dégg nga loolee lay nettali foofu lay commencé junj foofu dégg nga de mm-hmm. gaa yi nekk dañoo soxla ndox mm-hmm. fekk lu tolloo fukki giir ak ñaar ñoo àndoon ak moom mm-hmm. wa qataanaahum teqale nañu bani israil ñu nekk ay famille famille gis na tey asra mbir moom ñu nekk fukki famille Mm-hmm. ak ñaar mm-hmm. asbaatan ñu nekk ay giir mm-hmm. ak i sët mu man ba tey ñu nekk ay mbooloo yëpp badal la ci ege waaw xay naa wax yu nañu ilaa Muusa jëm ci yonent yàlla Muusa idis tasqaahu ba ka sàkkoon nanduloo xaw muhu bokki boppam yi na ko góor gi dañu soxla ndox mar nanu yitte woon nañ ko lool yitte woon nañ ko lool ba mu waxee loolu ci ardati haba mm-hmm. yàlla nag ci la ko waxee ay cax mm-hmm. jëlal yat wi mm-hmm. dóor ko ci xeer wi mu def ko ndox génn yat woowu moo soppeekoon démbu jaan de yat woowu moom lañ dóor tey ci xeer wi ndox génn suñ demaatee ci saar wi tegu ci ci tegu wi nii ñetteelu saar ci kanam wala ñeenteelu saar ci kanam yat wa moom lay dóoraat ci géej ga géej ga feera yet bi lu ne mën na ko la góor gi bu saaxoo doon wax ne yàlla bu mënutoon affaire suy tawal kaani day wax ko am papaye wala banaana wala pomme wala clémentine na nga ko baaseel gaaw maa ngi tawal kaani ndox mi mu kaani mu weex moom la tawal banaana mu neex mu tawal ko dégg nga maam clémentine tawal ko sapoti ñoom ñu mel na nu mel kookoo yàlla kenn du moom de kenn du yàlla subhanahu wa taala